de golo golo golo du kañe de. yow yow xamoon nañu woon Simbu Gaynde. waaw maa tay Simba maa maa maami Simbakat yi maa tay Simba Gaynde la na garaaw loolu am ay détail la nga yooyu yëpp mbiri góor la am jaar jaar nga xam ne léppam ay erreur la dara jaaxaluñu si Baye Mandione buy wax erreur la buy dox erreur la lu mu def erreur loolu la mu ne sax man moom mën naa assuré loolu billaay ma tegee benn tànk andeer sama benn tànk bor bi ba def nii benn rek yaa ngi de li ma waroon suma diggante ak bi ak sponsor bi ma jox dara woo junniy xoyantaan faalewu ma leen dégg ma de man xam nga lan laa xalaat ñu bëree ba pare mu ñëw faama man Modou maa ngi jox ñëpp rendez-vous diggante xoyantaan ci Gambie ah. salaamaaleykum internet Lutte TV point com ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen dalalaat jàmm ci seen revue de presse tey jeudi 12 décembre 2019 ñu ñëwaat ak yéen ci yéenekaay yi ma ciy ànd ak Amina Ndiaye Ndiaye mi maa ngi lay siyaar képp koo xamante ni yaa ngi ñuy suivre saa su nekk ci Lutte TV te di leen dalaatal jàmm ci xibaaru làmb yi. noonu la demee waaye balaa ñoo commencé dañuy dem ci MSD Prestige ak MSD Impact waaye tey nag journal bi revanche Bombardier ak Eumeu Sène mi ngi ci Balla Gaye numéro 2 wax na ci Boy Niang waaye écurie Fass ñoom i tamit fësal nañ leen ci journal record ak journalu suñu làmb dañuy dem jëli publicité bi ñëwaat. ki ko def ki ko wax rek la bëgg mbokk yi MSD prestige la ak MSD impact. yow mi doon wër oto bu baax te rafet tarkal la jóge ba Canada ci ay njëg yu xéwale dawal gaaw visiter suñu site internet www.msdprestige.com wala nga woo ñu ci suñu numéro de téléphone 33 835 72 83 dañuy jaay ay oto dañuy louer ay oto itam bu dee itam yow ay pièces détachées mooy sa soxla doon la yitteel trop da ngay dem seeti waa MSD impact ñoom itam itam ñi ngi ci wet ga da dem ci site internet bi def 3w point msdimpact point com MSD Prestige et MSD Impact encore plus proche de vous noonu la demee yaakaar naa ni leer na nañ écurie Fass journalu suñu làmb daf ko fësal journalu record daal di koy fësal muy écurie boo xamante ne nii fi toll ci làmb euh, fi mu dayo amoon ci làmb daaw ak daaw géej dafa wàcc dafa wàcc torop Amina umbale wu leen ni écurie Fass bokk na ci écurie yi nga xamante ni moo gën a rëy ndax ndaanaan yu bari foofu la ñu jaar mais nag amoon nañu ay jafe-jafe yoo xamante ni seen biir la woon mais ni ko tubaab di waxee rek le linge sale se lave en famille ba tax na ñoom toog nañu seen biir xoolaat nan la ñuy def ba defaraat li nga xamante ni moo di écurie Fass ginnaaw ba ñu jàngatee li nga xamante ni arrivé na leen ci saison bi passé maanaam saison dix 2018 saison 2019 amuñu ci benn victoire boo xamante ni daal dafa mag comme ñoom nañ ko daan faral di amalee muy loo xamante ne nii métti na amateuru làmb yi parce que boo waxee écurie ñu ne ténor yi fa nekk mënatuñoo am ndam euh, loolu ça fait làmb bu daan dox ba toll ci dayo yi écurie Fass da doon am ténor te daawul am benn ténor dina am ñetti ténor wala ñaari ténor bu làmb demee ba toll fii écurie xaw a sooxee yaakaar naa ne ñàkk déggool seen biir ba tax na jël nañu ay décision yu bees ci boobule écurie Amina Ndiaye ba tey ci seen jàngat yi ñu njëkk def avant ñuy jël décision yi xool nañu ñoom cinq dernières années yi treizième la ñu jël ci classement généralu écurie yi mu nekk loo xamante ni nag foofu du seen place comme ni nga ko waxee rek tax nañu tegaat ay nouveau code de conduite nouveau code de yoo xamante ni c'est à respecter wala rek nga dem sa yoon yaakaar naa ni daal écurie Fass jamono ji seen ay décision teg nañ ko te duñ ci dellu ginnaaw. loolu moom mooy ay décision yu waa écurie Fass teg écurie la boo xamante ne nii champion yàgg na fa. écurie la boo xamante ne ni stratégie yàgg na fa ndax écurie fas bañ nañ ko bari ñu ne moom mooy l'université de la foofu la Moustapha Guèye nekk di jàngal xale gone yi waaye écurie la boo xamante ne ni fi mu toll am nañu ay combat ci saison bi dañuy ñaan rek ñu déggu ci ak jàmm génn ci ak jàmm ak yeneen écurie yëpp waaye écurie Yoff nga xam ni ñoom jël nañu seen li nga xamante ne mooy suñu làmb door mille 2019 trophée bi nag dañu koy jot le 21 décembre incha allah war waa Dóor Dóoraat ñoom ñoo leen koy jox ndax ñoom ñoo ko jëloon daaw. le 21 décembre la waa écurie Yoff di jot li nga xamante ni moo di seen trophée ñu leen di ñaanal yàlla ñu àgg ci ak jàmm te mu doon seen njiglaay. noonu la demee revanche bi nga xamante ne ni moom moo war a dox wala moom la ñu bëgg mu dox ci diggante Bombardier ak Eumeu Sène am na promoteur bu koy dox waaye yemu ca Max Mbargane ku ne xam na ne moo nekkoon ménager wu Bombardier. gin après nag bi mag ja làqoo di pap ja Bombardier joxar ko licence am fi mu toll nag Max Mbargane moom nee na Bombardier pare na pour ñépp loolu combat de choc la loolu revanche boo xamante ne nit ñi dañ koo yàgg xaar mu war a dox ci diggante Bombardier ak Eumeu seen combat boobu nag yow Amar mën nga jàpp ni jamono ji képp koo xamante ni bëggoon nga mu taxaw rek mën nga waajal say cumukaay te taxaw parce que kii nii di Max Max Margan Max Margan bi nga xamante ni moom moo nekk ci côté Bombardier confirmé na ni Bombardier pare na contre Eumeu Sène mais tamit Landian Landian bi nga xamante ni moo nekk agent Eumeu Sène moom nee na Eumeu Sène tamit pare na pour jël ki nga xamante ni moo di Bombardier te pour promoteur bi ci suuf waxuñu turam day mais mi ngi ci. làmb Eumeu ak Bombardier revanche la boo xamante ne nii dinañu ko bëgg ndaxte Eumeu bi mu daanee Bombardier benn combat rek la fa bëriwaat te dafa daanu Modou Lo moom ci Eumeu la gëj a bëree combat boo xamante ne nii Amina bu ñu ko bëriwee dina nekk làmb juy neex ndaxte làmb pour mu neex faw ñoom ñu bëre pour ñoom ñu bëre faaw pour yi démarché leen ñoom itam. ñu am compréhension wàññi cachet yi wala xool lu ñu déggoo ak promoteur bi ngir ñu mën a bëri waaye Amina suñu làmb yemu fa Balla Gaye numéro de doomu Double Less bi doomi Malifara moom itamit pare na pour bëri ak Boy Niang numéro 2 d'après lu ñu bindal ci journal suñu làmb Balla Gaye 2 pré contre Boy Niang laaj bi moo bari woon ba xam Balla Gaye 2 dina nangoo bëri at ki nga xamante ni moo di booy Niang ci combat grand contre petit mais moom nag réponse am clair na tontu na booy Niang ba tontu keneen koo xamante ni sax di booy ñaar parce que nee na pare na contre Boy Niang non seulement mais tamit pare na pour jël ki nga xamante ni moo di Gris Bordeaux wala Bombardier wala Tapha Tine tamit leeralaat na ni moom moo nekk mbër mi nga xamante ni du toog naan kii laay bëreel wala këre laay bëreel képp ku ko làmb boolee rek moom Balla Gaye 2 dina bëreeg moom. loolu moom mooy mën-mën bëre boo ko mënee Amina Ndiaye dara du la sonal ci làpp Balla Gaye xale la boo xamante ne nii am na dayo mbër yor na fitu mbër te du ragal Balla Gaye numéro 2 gaynde la te ko gaynde rek lay doon xale la boo xamante ne nii e, ci làmb doo laajte kan mooy Balla Gaye ci làmb bu ñëwee da ngay xam ni Balla Gaye numéro 2 ñëw na bari na ay mbër yu mel ni moom nag yu nekk ci làmb ji waaye kombaam ak booy ñan combat la buy suqali làmb ñu bari ñu ngi naan jaaduwul ndaxte booy Niang pourvéwul face à Lac de Guiers numéro 2 waaye Balla Gaye tamit naar naari amatul lu muy pourvé ci làmb pour mu bëri ak Boy ñaa yaakaar naa ni euh, lu jaadu la moom réponse am da koo yaatal laalaat na laalaale na sax ki nga xamante ni Modou Modou Xarañ Lo nee na Modou Xarañ Lo jamono ji bu ko lamb boole woon ak moom Balla Gaye dina bëre ki nga xamante ni moo di Modou Lo jàll na tamit ba ci Eumeu Sène nee na Eumeu Sène nag li mu wax c'est regrettable que dootul tasante ki nga xamante ni moo di Balla Gaye 2 mais ñoom ñaar sax bu leen lamb boole waatoon dañuy bëre parce que nekkul genre mbër yi nga xamante ni dañuy daw kenn. loolu moom leer na ñëpp Amina waaye coach Lac de numéro 2 di wuyoo ci turu Arona Arona Sall tontu na nag ki nga xamante ne mooy Garga Mbossé bi Garga jógee États-Unis ba tamit ci Lac de numéro 2 la ko tegoon waaye Arona moom la jàpp ne ni Garga Mbossé deful ay preuve am na nag Garga def ay preuve am ba pare. doo wax waxul ak dëgg numéro 2. loolu mooy jàngat bi nga xamante ni Arona Sall def na ko jëmale ko ci Garga Mbossé moom nag nee na kii nii di Garga Mbossé mu dëggal boppam fësal boppam wane boppam ci lu baree baree baree bari te bu fekkante ni dafa bëgg a xam potentiel adversaire am potentiel adversaire am mi ngi nelawee fële na la ci géejawaay moo di Sa loolu moom mooy ay kàddoom waaye nag gargamboose itam hmm, fekk si na yi de Amina ndaxte am na dayo mbër mi def na fi ay preuve am ci làmb ndaxte boo xoolee combat yi jafe yi nga xamante ne duggoon na ci ci bari da ci génn ak ndam muy koo xamante ne nii rekki mbër la moom i tamit ndax Zoss mooy magam xale la boo xamante ne nii ginnaaw gi yaatu na macha allah bu tëqoo wala bu bëggee bëri ak Lac de Guiers bu ko Lac de nangoo làmb bu jaadu la xaw ma nag bu ko nanguwul waaye bu ko nangoo làmb ju jaadoo jaadu la ndaxte combat boo xamante ne nii combat bu am solo ndaxte Lac de numéro 2 Euh, moom itamit waxul benn xale bàyyi naa la ak yàlla. ba ci ay interdiction yi nga xamante ne nii moom la waa Fass di commandé fi mu toll toll na ci dix wax nañ ci yu ñu bëgg wax nañ ci li ñu bañ Amina. taxaw nañu temm pour raxas li nga xamante ni moom mooy salteel seen famille ñoom waa écurie ba tax na nag indi nañu seen ay dix recommandement dix yoo xamante ni ci biir mën nañoo jàpp ni am na ay obligation yoo xamante ne ñoom ñëpp a ko war a def te kenn war a cee teggi lu ci mel nii lépp loo xamante ni bind nañ ko ci seen fiche de note bi rek muy mbër di entraîneur di ñëpp dañ ko war a respecter obligatoirement am na tamit ay interdiction ci biir dix yi interdiction bi nga xamante ni nag képp koo xamante ni danga koo def te waroo ko woon a def rek dina la indi li nga xamante ni moo di exclusion maanaam ñu dàq la ci écurie Fass yaakaar naa ne ay décision yo yoo xamante ne ni tegu na ci yoon la ñu jël ndaxte fi mu toll écurie bëgg nañu am titre roi des arènes yaakaar naa ne écurie bu doon écurie Fass tigre rek doyu ci ay tiigër rek doy ci Amina. waxaale nañu tamit lu am solo nee nañu amul benn mbër boo xamante ni yaa ngi yewoo fas di jël combat te waxtaanoo ci ak waa écurie bi ba pare loolu moom bu ko ko ci def rek di nga am ay sanctions. maanaam daal combat bu ñuy dégg mbëru fas rek nañu assuré wu te xam ni waa Fass ñoom ñoo ko signé. waa Fass ñoo ko signé mbër boo xamante ni jël nga combat ba nit ñi di ko waxtaanee rek na la leer waa écurie fas ñëpp dañoo joxe seen accord. noonu la demee waaye am na combat bu taxaw nag. combat xale wala sax xale ak mag mën nañu ko wax Baldu ak Ahmed ak dem Ahmed dem bu caaro yi ku ko xam-xam ko ci bëre ku ko xam-xam ci technique mook Baldu nag seen combat Amina taxaw na kii moo ko tëgg promoteur Yaba Ndiaye promoteur Yaba Ndiaye mi nga xamante ni moom moo nekk ci Kapi production taxawal na combat bi war a dox ci diggante Valdo ak Ahmed Dem mu nekk combat boo xamante ni nag mars lay am fële ci Linguère. làmb la boo xamante ne ni ki ko tëgg promoteur bu bees la moo tax mu yóbbu ko ca Linguère waaye yemu ca Modou Xarañ ginnaaw bi ñu ko joxee trophée meilleur lutteur moom nag daje na ak ay fansam waxtaan daje na ak ay fansam ñu soulagé wu jubilé li nga xamante ni moom la ko jox ndax jox nañu ko lu mu yelloo jox nañu ko lu mu mérité. waaw Modou Lo ba mu jotee couronne bi ba tey dafa mel ni ay fansam amuñu woon accès ci moom ba tax na doon nañ ko kaas ndax da leen amoon lu mu leen permettre promettre mu doon ni ab caravane boobu gisuñu ko woon mais nag Modou Xarañ Lo dafa mel ni réparé na bépp naka rek boo xamante ni fansam yi amoon nañ ko ci moom muy le 8 décembre bii nii ca unité 25 amaloon na benn yendu yendu boo xamante ni nag fansam yëpp a fa waxtaan lépp loo xamante ni rek ñagasoon na seen biir. yaakaar naa ne leer na nañ ndaxte Modou Xarañ Lo moom mooy Sénégal fi mu toll. ndax moom mooy titre couronne roi des arènes kullu mbër fi mu toll Modou Lo sa njiit ndax moom moo yor bi loo xamante ne ni moom la mbër yëpp di wër moom mu yore ko. waaye ginnaaw ba aaroon a waxee Garga Mbossé tamit teewul tontam benn yoon ndaxte moom nee na Lac de Guiers la bëgg a bëreel Amina ngir venger magam Zos. loolu la Garga Mbossé tontu ki nga xamante ni moo di Arona coach Lac 2 moom nag nee na faw mu jot ci ki nga xamante ni moo di Lac de Guiers dóor ko daan ko pour mën a venger magam ji nii di sos. noonu la demee waaye combat mag ak xale dafa Gueye numéro 2 ak abu Diassé ba tax na journal bi def Abou Diassé favori ndax xam naa moo gën a nekk xale ndax xam naa jàpp nañ ni mu moo ëpp kattan waaye nañu xam ni Tapha Gueye numéro 2 ndaanaanu bërikat laamina may ndewaan moom moo wax loolu noonu ci combat bi nga xamante ni moo war a jox ci diggante Abou Ndiassé ak Tafa Gueye 2 di nag abu Ndiassé la ko jox mais Tafa Gueye jàpp na ni tamit am na espoir. am na espoir am na loo xamante ne ni mu ngi ci moom ndaxte mbër la moo xamante ne ni ndaanaan la ndaanaanu bërikat la te champion la yaakaar naa ni nag leer na moo tax nag journal bi Amina daf ko tëjee ak flashback. flashback bi nga xamante ne moom moo amoon keroog dimanche 25 juillet 2010 ci stade Ngalandou Diouf les deux daan ki nga xamante ne mooy Cheikhou Diène journal bi tegul ñu ci de A à Z wala li yëgul Z. àgg na ba zedd kay parce que combat baa ngi nii ngay gis lépp ginnaaw ba ñu indiwee flashback bu 2010 yàgg na lool dimanche la xewoon 25 juillet ci stade ju Diouf combat bi doxoon ci diggante Lac 2 ak Cheikhou Diène ni arbitre bi soufflé Lac 2 nekk suñu càmmoñ Cheikhou Diène nekk suñu ndeyjoor ni ñu songoowee di xeex seen ay léwtoo lépp ba Double Less ni mu nekkee ci kaw Cheikhou Diène lépp a ngi ci biir flashback bi. noonu la demee yaakaar naa ne leer na de. leer na nañ bu ko defee nag ku nuyoo nekk di nga tàggoo ñi Lamine daan nuyu ñëpp xamuñu leen nag mënuñoo jaar ci seen tur yi kon nu ñu koy waxee saa su nekk mais képp koo xamante ni yaa ngi bégg tey safoo Lutte TV saa su nekk rek fekk nañ la fi nga toog nuyu la ni la jàpp te di la jox dig daje ba suba incha allah. noonu la demee ñu ngi leen jox dig daje ba suba ak jàmm incha allah bi jaa ngeen jëf de golo golo golo du kañe de. yow yow xamoon nañu simb gaynde. waaw maa tay si maa tay simba gaynde laa. non waaw garaaw loolu am ay détails la. nga yooyu yëpp mbiri góor la. yaa ngi góor foog nga jaar jaar. man simb naa ba tay fu ne. Baye Mandione mi nga xam ne léppam ay erreur la dara jaaxaluñu si. buy wax erreur la buy dox erreur la. lu mu def erreur loolu la mu ne man sax man moom mën naa assuré loolu. billaay ma tegee benn tànk andeer sama benn tànk ba lijjantiwuma junni xoyantaan faalewuma leen da nga ma de téeméeram lijjantiwuma leen man xam nga lan laa xelaat ñu bëree ba pare mu ñëw faama man Modou Lo maa ngi jox ñëpp rendez-vous diggante xoyantaan ak Baye Mandione ci Gambie ah